asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ab bis ni tey bii nag mbégte la ñu am ci li nga xamante ni moo xaw ci commune Kayar mooy que dañu fi taxawoon daaw waxante ak askan wi nii leen bu déwénee daañu leen jox fourniture waaye duñu bëgg taxawal loo xam ne mësul am ci commune bi mooy benn élève benn sac. waxoon nañu fi daaw nii bu déwénee fas nañu yéenee jox école yëpp ay fourniture te bëgg nañu tam bu ñu si egsee ñu jox benn élève bu ci nekk ay fourniture mu nekk ci saagam sunu borom dimbali nañu ba loolu am na tey kon loolu mbégte si ñun ndax mu ñu ñaane yàlla mu may nu mbégte la si ñun waaye ñoo ngi sant euh, équipe municipale bi nga xamante ni ñoo ànd ci liggéey bi ba lii taxaw di ci sant itam képp koo xamante ni teew nga fi tey ànd ak ñun ci mbégte mi nga xam ne moo fi am waaye ñoo ngi sant directeur d'école yi nga xamante ni ñoom seen taxawaay aussi rafet na ci bis bi di sant aussi ñëpp ñi nga xamante ni teew nañu fi tey bisab tey bi mbégte pour la commune de Kayar am nañ ci fierté vraiment ñoo ngi ñaan yàlla sunu borom su dewee déwénee lii ñu def ñu def lu ko ëpp gën koo rëy ndax ren def nañu loo xamante ni daawuñu ko def mooy que école arabe yi nga xamante ne ñoo nekk ci commune bi ñëpp sóoraale nañ leen ci mbir mi ba jox nañ leen ay fourniture comme ni ñu ko joxee école français yi daara yi itam prévoir nañ leen semaine bi ñëw ñooy leen defal commande bi ñu leen defaloon ci àlluba yi moo ñëwul nekkoon ci bisab tey bi si la ñuy joxaale daara yi li nga xamante ni mooy àlluba yeeg basang yi nga xamante ni ñoom moo di seeni aajo kon loolu tey wane na nii ñoo ngi ci beneen jéego te jéego bii ñu jëmit incha allah noonu lañ ko bëgg defe ci lépp loo xam ni moom lañ koy defee diggoon nañu fi Euh, ASC yi grille de protection sunu borom def na laata nawetaan yi def nañu ko kon noo ngi ñaan yàlla sunu borom lépp loo xam ne wax nañu ko fi yàlla dimbali ñu ba mu mën a sotti si jàmm. aw bu ñu ko xaymaa ci xaalis euh, romb na euh, douze million waaw romb na ko noonu beneen bi aussi fourniture yi ni mu bindoo mooy école école bu ci nekk am na loo xamante ni moom lañu la jox muy ci cahier cent pages deux cent pages. ak ak kit yooyu yëpp am na lépp loo xam ne moom la élève bi di jariñoo defal nañ ko ko pour une année bi mu bañ see parents yi bañ see def benn jéegu bañ see def dara bu ànd ak sac ñun li ñu wax mooy loolu loolu la waxoon daaw wax naa ko sànq ñu dañu ne woon bu nee fas nañu yéene lépp lu ñu leen di jox ci saak la ñu koy def sunu borom dimbali nañu ba loolu am na ren jën nañuy saak jox nañu leen ko kon yàlla dimbali nañu ba leen waxoon daaw am na. kon vraiment ñoo ngi am mbégte ci loolu di sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah. Je m'appelle Ali c'est le premier adjoint au de la commune de Kayar. Aujourd'hui, nous, nous, avons organisé la remise des fournitures aux écoles. C'est arrivé un peu tard, mais il est mieux vaut plutôt, plutôt, plutôt tard que Et c'est à des manquements dus aux enseignants qui pas communiqué les effectifs à temps. Et on peut le comprendre tout simplement du fait que les effectifs sont encore fluctueux parce que tout simplement, il n'y avait pas toutes les données. Mais aujourd'hui, on a pu distribuer C'est une fierté de remettre des matériels scolaires aux enfants parce que c'est l'avenir de demain, c'est l'avenir de la commune. Et aujourd'hui, on a à Kayar euh, 4, 5 écoles publiques. Mais on a aussi trois FA, une école, une, FA, une, école, une école, française, une franco-arabe publique et deux écoles franco-arabes mais qui sont des privées. À toutes ces écoles-là, on a remis du matériel

en essayant de doter à chaque élève de CI et de CP un sac pour que ces enfants-là qui viennent d'entrer à l'école puissent être dans de très bonnes conditions et de faire leurs études normalement. Mais il faut aussi remarquer que le maire ne, s'est pas Il a aussi donné à la, au jardin, à, à, à, la case des tout-petits qui est à Kayar et au d'enfants aussi qui est Kayar, les tout-petits, on les a pas oubliés, on les a donné le matériel qu'il faut, des cahiers de dessin et ce aux écoles arabes, qui sont des écoles de la commune, parce que les enfants sont des enfants de Kayar. On les a remis aussi des lots de matériel, des crayons, de couleur pour les enseignants, des crayons de couleur, pour les enseignants. Mais aussi, on a remis des cahiers à ces élèves-là. On les a aussi remis des sacs pour leur permettre d'être dans très bonnes conditions. Mais ce qu'on veut remarquer aussi, c'est qu'aujourd'hui, cette année encore, le maire qui, pendant 5 ans, n'avait pas de place, le maire, a, le, le maire, a, pu trouver une place et l'école a été construite déjà y a 4 classes. Mais on remercie au passage un jeune de Caire qui s'est volontairement investi pour construire des toilettes pour cette, école-là. Donc tout ça, le maire veut améliorer la qualité. Améliorer la qualité, mais aussi améliorer l'accès et essayer d'avoir avec les parents d'élèves, les comités de gestion et les enseignants pour qu'une cogestion entretenir ces écoles-là, entretenir le matériel scolaire. Et en maintenant, la deuxième phase où nous allons aller, c'est maintenant la réflexion des écoles. On a des réflexions à faire au niveau des écoles. On a dégagé l'argent qu'il faut. On va s'y atteler bientôt. Et l'éducation est une priorité du maire. Et cette priorité-là, le maire va tout faire pour essayer de relever le niveau au niveau des écoles de Kayar. Donc, c'est une fierté aujourd'hui. Les enseignants sont contents, les élèves sont heureux, les parents d'élèves sont soulagés et je pense que c'est ça la décentralisation. Mais au passage, nous remercions le président de la République parce que c'est avec les fonds de dotation, avec l'appui de l'État que nous avons pu réaliser ça. Donc nous remercions le président de la République pour les fonds de dotation qu'il a donnés aux, aux, aux, aux, communes. La commune de Kayar en a ajouté, mais nous remercions le président de